الحمد لله رب العالمين جل جل الشيخ وحول البشير دانا كجل تورن ما ديجا ريتي دول بن كادو اخ كادو جي متلنا لب سك لو فكر رك dellu gannaaw tuuti eh, man la dana ci baax loolu fan koy tàmbalee rek mooy Cheikh Abdoul Ahad eh, liggéey bu eh, lépp gannaaw Sëriñ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 moo feeñal sëriñ bi ci yéen ndax daf leen a gis rek xam ne sëriñ bi sëriñ sëriñ bi rek moo ne ci yéen mu jóg yéen jëpp itam jëpp muy taxawal leen bu ngeen mën a soowu sax dàkk ci liggéey sëriñ Tuubaa te yàlla tax

دفن لجيب ريشين وخمنة أمول فمية ملوفة لجيب جم دخمهم مهن تدي حزب الترقير ترقير لك تشيل لبنك لقد خاقنا الإنسان في أحسن تقييم فمرضناه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

yéeg yéeg yéegi yéegi ni ko suñu borom waxee rek mu gàttal ci gàttal ni mu ko defee rek moom mu ñëw tudd leen tur woowu xam ne jëlee na ngeen suufee waaye dafa bëgg ngeen di jëm kaw mooy Hizbut Tarqiyyah mooy kuréel lu yéege loolu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

dafa mënut a ñàkk waaye mëtatu ko waaw ndax yéen jëf juy taxaw ngeen loolu wax wax aju aju ajootuñ ci wax ndax jëf ju jëf taxaw ngeen loo xam ne pàggute fi Sëñ Tuubaa la muy taxawaay boo xam ne itam nag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 kon loolu pagguteefu ma yéen pagguteefu sëriñ bi ngeen ndax tawfeex ju leen yàlla defal kon da ca des rek moo di nu sant du gën a sant sëriñ Tuubaa ci yéen sant leen itam loo xam ne sëriñ bi lan koy defal la mu la mu fàggu na mel sun borom la faw mu am waaye nag dafa am zaahir am baatin ana luy zaahir si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 nga gën a sóobu nag gën a jéegu gën a dox dox boo xam ne nag fi fii àdduna tax ko jóg àllaaxira rek rek ko tax a jóg kon alhamdulilahi rabil alamin noo ngi leen di sant suñu borom mi nu booleeg sëriñ bi noo ngi sant sëriñ bi noo leen di noo leen noo ngi leen di sant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 koo xam ne da nattu ak njabootam ba xam yow yow nañu wala yowuñu dox leen ak fetal leen diir leen ku ko jox nga diir loo gis nga gis naa nangam gis naa nangam moom ak si ka nga xam ne da ko ne gisuma dara loolu li ma diir loolu laa doon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 sëñ sëñ tubaa ngi ngi sa xol maa ngi ñaan ci baaxu sëñ tubaa lii ngeen am muy tawfeex sëñ tubaa ju sell ju wér maa ngi ñaan ku nib taalibe yàlla def ko ci yow noonu dong dong dong dong la yoon waa ngoog waaw yoon waa ngoog ñëpp ñun ñëpp ko bëgg ko waaw ku gëm yàlla bëgg sëriñ tubaa doonoo sëriñ tubaa ñun ñëpp bëgg li ngeen bëgg li ngeen li ngeen nekk ñun ñëpp ko bëgg waaye nag xorriya ah, bi maanaam maanaam maanaam liberté bi bi ngeen am boo def liberté lépp dara dara dara dara dënku leen ngeen soobu yoonu ya, yàlla ah, loolu moo moo moo loolu may wax loolu moo may wax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 kon nag yoon waa ngoog yoon waa ngoog yàlla na nu eh, gën gën a gàttandoog gën a gën gën a gàttandoog tawfeex Sëñ kon nag yoon waa ngoog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

sant nañ leen bu baax baax baax baax ci jigo yi ngeen jéggi ak jotaay bi jotaay bu yàgg bi ngeen tok ñu ngi leen sant leen gëreem bu baax baax baax baax ya yàlla noonu suñu borom gëna gatt nak tawfiq sëñ Tuubaa ci suñu biir suñu bitti suñuy biir yépp yàlla noonu suñu borom gëna gatt nak tawfiq sëñ Tuubaa kon dafa melni tawfiq sëñ Tuubaa rek am solo dafa melni tawfiq tawfiq sëñ do nga am solo ah, kon nak mom lu ni def nan ñaan def nan sax dak ñaan xam naa sama looy ñaan rek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 waaye liñ ci mënta ñàkk muy tas fi yaa leen ko def yaay si yéen sayxul mu sat fii loolu murid yëpp nangu nañ na ñëpp na seen loxo te ñaan te mu yàgg loolu te na fi yàgg loolu te ànd ak yi ñu na ñëpp toog ah, na ñëpp toog na ñëpp àgg suuf ba sëñ bi jóg na ñëpp toog ñu ubbi yoon wi